mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziare ci subak samedi ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jaamu yàlla def ñu dégg dëgg jullit waaye sàmmal ñu suñu iman ba mu bañ a rëcc ba bu ñu demee mu mën a kontaan si ñun moom suñu borom macha allah yóbbalu tey bi dafay waxati lu am solo rek day wax ni les membres d'une même famille ne rivalisent pas ils s'entraident pour briller ensemble solo importance bi nekk ci famille rek la lay wax gis nga mbokk yi faw ñu bàyyi xel ak bokk bokk day nangu nañ ci xadis yorent bi mu ni bi ko yàlla bindee da doon sax mel ni kuy bëgg a gàntal wàcc gi yàlla ni ko lu tax mun ko dama xam ni fi nga ma jëmee dinañ ma dokk te loolu dina métti ci man boroomam ni ko xanaa du la doy ku la jokk ma jokk ko ba yowmal ma dugal ko àjjana waaye ku la dog ma dog ko ba yowmal ma dugal ko safara yal nañ yàlla musal ci dog ak bokk waaye nañu bokk ci ñu koy jokk mu lay wax nag ni la kenn tànnul fi ngay bëgg a bokk yàllaa seet fa ko neex mu boole la nit nag mën ngaa gën say mbokk waaye mënoo leen a génn mën ngaa ëppale say mbokk waaye mënoo leen ëpp ndax li ngeen bokk bokk ngeen ko ba pare mu ne nag même benn famille mënuñoo doon bokk li ñu bokk ci seenu bokk moo xam ci ndey moo xam ci baay ci maam lu mu mën a doon waaye daal bokk gaa ngi fi ba pare ngeen di wujje nee na loolu baaxul ak bokk duñ ko jël di ci wujjante nga ngay dégg sax ay nit naan wujj wujj ci doomu ndey la commencé yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne jarul di bàyyi xel parce que wax dëgg yàlla ki la yàlla booleel muy sag bokk boole na leen ba pare kon yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi yéen a bokk yooyu yëpp amul solo mbokk génn bokk rek mooy lépp mun kon bu leen toog di wujje te loolu nag dañ ko def ñun suñu dund ñun ñëpp rawatina nag li gën a bon ñu koy yaatal cim réew mooy kenn ko di naan diw sa doomu bàyyi laak sa doomu bàyyi moytu kook doomu bàyyi doomu bàyyi la rek ak yooyu yëpp yooyu yu bon la yu ñaaw yoo xam ne wax dëgg yàlla jullit bu nitee waroo cee sax bàyyi xel mu ni loolu jaaduwul ci ab famille ñu doon bokk li ñu bokk ba pare di wujje ndax ay considération yu kenn xamul mu ni loolu rafetul ndax eh, yàlla moo leen boole bokk ak ak bokk te fonk bokk lool téye leen ko wasilul arxaam yonent bi doon na ko wax dee leen jokk ak bokk dee leen ko téye mu ni kon li ñu leen war mooy lan ñuy dimbalante pour mën a biriyéendoo ensemble nee na loolu moo baax ci bokk <laughs> dañuy jàppante rek mag ma joxe woon na ko ci misaal ba mu bëggee jabootam booloo nekk benn di dimbalante mu dajale sayu matt ba ku ne mu dammuloo ko ku munu koo damm ba mu ko tàqalee ku ne damm ba sax nii la bu ngeen booloo di dimbalante rek kenn du man ci yéen dara waaye su ngeen tàqalikoo mel nii bant yi ni ñu tàqalikoo ku leen song daan leen yàlla ni yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy fonk seenu mbokk téye ko duñ ci wujj mukk waaye di dimbalante ngir mën a àndandoo biriyandoo ensemble yàlla nañ ko suñu borom defal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.